toog fii ci buntu kër gi buntu ñaari basan lañ laloon ñaari jigéen ñi toog ci basan bi ba pare boolu beñe lañ defoon lañ defaroon laa ilaaha illallah ca déwén sa ñu def benn baas fii ci roq bii mhm. waaw ma koy wax ne ko ñeme ko rek incha allahu rabbi di nga def mhm. bay def ñetti baas chaque jour ma koy wax loolu mhm, laa ci bëggoon doole loolu ëppoon naa naa ñàkk wax barakallahu kon dégg ko euh, loolu mooy def te yàlla tax nee nañ asalaamaaleykum ñu ngi wéyal liggéey bi nga xamante ni euh, TV Junudullah mu ngi koy def ci Dakar ci programme Seydi Aliou Manka jàngkat bu mag bi euh, bu ko defee ñu ngi toog ba tey euh, xaritam Seydi Alhaaji Njaay jóge ba Kaolack nekk taalibe Ibrahima Niass moom it di xaritu Seydi Aliou Manka Seydi Alhaaji yaa ngi ñëw ci jotaayab Seydi Aliou Manka bi muy def fii chaque année di sant sëriñam Seydi Aja Ndaw radiyallahu anhu Euh, lan lan nga xam ci lii wala lan ngeen lan moo leen boole yéen ñaar ba yàlla dogal tey ngay ñëw ci jotaayam dégg nga de baxee ko fii ba Kaolack ndeysaan ak nu Kaolack suree dégg nga de euh, ñëw ci jotaay bi fekk li ci Seydi Aliou Manka ñu bàyyi la tele bi nga nuyoo incha allah. Mhm. Mhm. yàlla rek. yow alhamdulilahi ginnaaw ñu sante suñu sëriñ moo Cheikh El Hadj Ibrahima Niass radiyallahu anhu di taalibe Cheikh alaaj Yomam Ndaw tamit di taalibe Cheikh mm-hmm. yaakaar naa lépp génnul ci Cheikh bi déedéet benn la ah, boo xoolee juróomi leer mm-hmm. te tamit benn bi la rek benn maqaama bi la mm-hmm. garab garab la mais branche yi fu nekk dafa am fooy jaar mais guddi guddi branche garab gi la waaw ah, waaw dëgg la de garab gi buddeetoo rek ñoom ñëpp dañuy kon fekk garab yaa ngi samp rek. Mhm. terewul ñun ñëpp garab gi la. kon mhm. mën naa ne ñëpp ci Cheikh lañ jógee. Mhm. waaw Aliou nag. Mm. Euh, li ñu mën a wax ci moom dañuy dañuy dañuy jéem wax ci moom. waaw mais bu ñu waxee si moom lépp rek dana am lu ñu bàyyi. kon dañuy jéem. Aliou nekk na nit koo xam ne. Mm. yàlla moo ñu boole ci ezel. waaw yàlla moo ñu boole ci ezel. lu mëntoon a ñàkk la faaw ñu dajee. nekk nit koo xam ne. maa xawma nitu lan la quoi. Mm-hmm. en fait nit ko maa bu ma xawma nitu lan la. du mm-hmm. wax ju kii mais nitu lan la mooy maanaam. Mm-hmm. capacité Aliou ci teey. ci dal ci ñàkk a yëg boppam. dafa am solo. Aliou nekk na nit koo xam ne ni mu nii ji nga gàmm gi jàng nii nii su mën na xëy suba sol kilo romb nit ñi. mu wax ma li ko lii du yow yaa ko sabab. waaw Alaaji amoon na dafa am ñoo xam ne da leen a jàngal leen. tatagal leen. am ñoo xam ne moo ñoom loon te Ezel yàlla jokkoog mu tànn leen ci tànneef yi nga bokk. Hmm, ah, moom ci tànneefu Seydi a Omar Ndaw yi la bokk. ci la bokk macha allah. Uh-huh. tànneef nag dañ lay sànni fële. Hmm. au début bi. Hmm. bi mu ñëw Dakar pour moom moo ko ah, ah, day def métier moom la. téer lay def ah la. waaw ah allah mais pour moom téer moo ko fi andi. Uh-huh. mais téer bi zahir bu muuroo la rek. ah téer bi moom da ko mbuboo noonu rek ismu zaat la mënta mënta ñàkk waaw ah, mënta ñàkk waaye am na lu ne ci biir yàlla bu la naree namb mhm. foo am am bu la defal ah, kiiraay bi mooy téer lii nii mhm. liggéeyu si dara déedéet tànneef la uh-huh. tànneef la moom xam na ni tànneef la dëgg la tey ki liggéey mooy ki nga xam ne dafa jàng mhm. kërti kërti gën gën jàng ala bu ñu xam ah lii dama ko jàng dama koo tarbi à chaque fois da koy ndamoo mais ki nga xam ne yàlla moo ko sol lu ñu wax rek duñu wax ne da koy oyofal. Mm-hmm. moo tax moom mu oyofal ko. Mm-hmm. moo tax ma ne ko Alaaji Omar Ndaw bi mu jox ñuy téere jox ñuy nangam jox ñuy nangam yow dalaa dalaa sol ci baatin te yëgoo ko. Mm-hmm. jox ko téere bi muy muy jàng. dégg naa benn borom xam-xam mu ne ko xamul téere du ko jàng de. déedéet. Ah. rawatina nag moom ni mu koy jàngee. moo gën a ah, gis nga ni gars yi di ko seedee ci nga xamante ni maanaam moom jàngut ko ngir intere da koy def te yàlla tax te fu nit woo mu wuyu si la même bu amul paas sax da koy lebi. waaw loolu naa li ma jox yooyu toog benn fa mu ah alaaji mu ne maa ngi war dem jàng naa nga de mhm. waaye di gis nga de ma ne ah demal gi bi mu wax naan xa gàmm gi naa ma géy lu yoon mhm. alaaji ama ndaw moo ko tëgg waaw moom ay ganam waaw yow yoon nekku si déedéet waaw dëgg la de lu yoon looy inquiète yu nii gani bu ñëwee bu ñu lekkul alaaji ama ndaw la waaw buñ fi andi yow lu yoon dëgg de doo maandu. Iliya mm-hmm. Ndaw da laa samp rek. waaw doo si tus wallaay ndeysaan. ko waxee mu ngi nii di ko wéet. ma mm-hmm. ñëpp yonent bi beneen fi andi. Mm-hmm. yonent bi mun nangoo seetaan ay taalibe fii. Mm. lekk naanuñ bâche dugg si. Mm. yow sa yoon nekk sa jàmm wàcc na. ndeysaan yow dañ laa wooteloo rek. ah Seydi Alaaji macha mu ah. waxee mu demee mm. ne mu wax ne damaa ma lii mënatuma. yàlla na yow kii gëm a kurut gëm nekkul sa loxo dañ laa wooteloo woote la. maanaam yow daal dañ mission lañ la jox rek. doxal ko waaw Ah. waaye kii doxal mission bi moom mooy ki la ko jox. kii doxal mission bi. waaw kii lay doxal moo koy doxal. Ah, ki lay doxal mooy doxal mission ah, am bët. tax ko gis. am nopp tax ko dégg. tax am nay nopp. waaw dëgg te du dégg. dëgg la fu oh, naa dëgg de. lay dégg ci oh. moom mooy dégg lay dox ci moom mooy dox. lay gis ci moom mooy gis. xaqan. Mhm. waaw man des fois day wax sama nekk Aliou mu ne ma ah ni nga ni jël xaalisam lu ne lay dox. Mhm. day demee ne sax man nag ah doo jéem a kii nag mu ah alaaji man da gis nga. ma ne ko waaw que lii nii. Mhm. heure bi nii nii nekkul loo war a jënc li ñëw mu ngi ci kanam. Hmm. liggéeyal yàlla. liggéey yàlla amul pertement mais di nga toll boo si nekk au début da nga ah, li may liggéeyal yàlla nii. Hmm. man daal nekk di liggéeyal yàlla di wér du nag mën naa affaire gën a dëgër. Hmm. man daal nangam sa du ma ko am nangam sa yàlla na yow ci liggéey nga toll lu si yoon ci ay dépense. waaw wallaay ndeysaan loolu moom moo la koy teel moom. dañuy liggéey pour ñoom. am ñoom dañuy liggéey pour seen njaboot am ñoom dañuy liggéey pour seen sët da ngay dégg ñoom maam du ko liggéeyal. Mhm. waaw loolu am na. ñu dégg ñu ne eh, baayam du ko liggéeyal. da ngay dégg ñu ne da koo liggéey. Mhm. maam léegi boo bëggee dégg loolu jàmbaar am. Mhm. ku yàlla dimbali rek moom moo fi ne ndeysaan ndeysaan yonent bi. Mm. yonent yëpp ñoo ko fi njëkk. sallallahu alayhi wa sallam. mais moom. Mm. mooy daj dépp gi. njëkk a départ. taxut a njëkk a yegg. déedéet. njëkk a départ toppatoo ah, njëkk a yëngu. Ah, wallaay dëgg la Aliou hmm. li muy wax ci moom dëgg la. Hmm. na góorgóorlu. ndeysaan ndeysaan waaw El Hadj dina ko dimbali si kattanu yàlla. Hmm. macha allah si ñu ngi rafetlu tamit bu baax. waaw di nga rafetlu bu baax tamit di. wax ne yàlla yokk amiin yaa rabbi yokk ni ma ko waxee noonu dem ma ne ko Aliou mu ne ma bi ma ne bu déwén mooy mooy gën a rëy mooy gën a rëy mooy a ah, loolu mooy def te yàlla tax macha allah yéen a ngi ànd ak xaritu Seydi Aliou Manke jàngkat bu mag bi Eh, di Seydi Aliou eh, Seydi Alhaji Ndiaye eh, de jóge fee ba Kaolack di taalibe Mawlaaya Cheikh Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu barakallahu dégg ngeen kaddu yi nga xamante ni moom la seede si jëmm jii di Seydi Aliou Manka macha allah di kaddu yoo xamante ni yu rafet la yum mu tibbee ci xolam kon Seydi ji duñ def lu dul nga tàggatoo si bii nga xamante ni mooy Tifi Junaadullah lan nga leen di wax ak lan ngay tàggatoo. waaw di waxaat alhamdulilahi rabil alamin rek mhm. parce que alhamdulilahi moo njëkk alhamdulilahi moo mujj waaw sant rek waaw mhm. bàñes bi ko waaji laajee na ko yéen ci lan ngeen mu waaji waaji ne ko yéen ci lan ngeen nekk mun ko yéen ci lan ngeen nekk mhm. mun ko ñun de buñ amee sant buñ ñàkkee muñ bàñes ne ko ñun de buñ buñ amee joxe buñ ñàkkee muñ buñ amee joxe buñ ñàkkee muñ waaye def na ko loolu ci lan ngeen nekk mun ko ñun buñ amee sant buñ ñàkkee sant mun ko ñun buñ amee joxe buñ ñàkkee muñ waaw kon tamit lépp ci mu ngi wéeru si tënku baatu alhamdulilah. alhamdulilah rabbil alamin waaw hmm. tamit di ñaanal télé bi. Hmm. mu màgg ba màgg. amiin amiin amiin dara yeggul ëllëg bu ñu bu ñu wax sax dañ naan oo leen télé bi. Hmm. ñëw yegg na mindee fi amiin amiin amiin yàlla mun na ko te yàlla na ko yàlla def amiin yàlla na ko yàlla rafet njortu amiin amiin yàlla yëkkati ci télé kaw a mag a mag amiin yaa amiin ci barke bés bi amiin barke alaaj amiin radiyallahu amiin radiyallahu macha allah uh, ñëwal bisimilah waaye ba tey yéen a ngi ànd ak liggéey bi ba tey euh, Seydi Ousmane Seydi Cheikh Tidiane Cissé maanaam daa am lu muy seedeel comme ci li doon suñu leader bi doon wax El Hadj Ndiaye euh, mu bëgg see sànni ay kàddu kon dañ lay jox micro bi rek nga. li ma ci bëgg yokk rek. Hmm. mooy li kiy wax nii maanaam Aliou bu mu ragal dara bi muy tàmbali lii ñun ak ñoom moom la woon fii. Mm. jour bi ñu ko njëkk a def. Mm. basan la la woon basan. basan la la woon waaw te boolu beñe lañ defaroon. boolu beñe boolu beñe waaw. lan <laughs> doy na waar sëñ bi loolu ëppoon naa ñàkk wax de. lañ defaroon. a ah, sësal micro bi. bi ñu koy njëkk a bi muy njëkk a def kii bi ah, fii. Ah. benn ba ma ñaari basan lañ fi lal jigéen ñi toog ci benn basan bi góor ñi toog. ci ci buntu kër gi fii. ñaari basan lañ laloon ñaari basan lañ laloon maanaam jigéen ñi toog ci basan bi jigéen ñi toog ci basan bi ba pare boolu beñe lañ defaroon laa ilaha illallah ca déwén sa uh-huh. ñu def benn baas fii ci roq bii uh-huh. ma ne koy wax ne ko ñeme ko rek incha allah rabbi di nga def uh-huh. bay def ñetti baas chaque jour ma koy wax waaw yokku na de waaw mm, macha allah loolu laa ci bëggoon doole loolu ëppoon naa ko wax loolu ëppoon naa ñàkk ko wax barakallahu kon dégg ngeen ko euh, loolu mooy def te yàlla tax mm-hmm. nee nañ bi mu tàmbalee ñaari basan la woon ak benn boolu beñe man nag boolu beñe mi moom si gën a def kii léegi nag fu mu toll ni barakallahu mu ngi dem ba nga xamante ni alhamdulilah te day gën di yokk rek waaw def te yàlla tax moom amul tànk ginnaaw waaw tànk kanam rek la te moom dafay def te yàlla tax mm-hmm. kon euh, ñu ngi woon ci euh, Seydi Alhaaji nu muy tàggatoo mm-hmm. incha allahu jërëjëf rek. Mm-hmm. di di bàyyi beneen yoon. Mm-hmm. incha allah comme ni ñu ko fekkee nii ren. danañ mm-hmm. ko fekkee waat. amiin amiin amiin. barke Seydina. amiin salawaatilaay macha allah jërëjëf. yéen a ngi ànd ak seen bi di TV Junudullah leeru jamono barakallaahu ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi koy def fii Dakar ci jàngkat bu mag bi ci hooteem bi ñu xëy si ko di Seydi Aliou Manka bu ko defee alhamdulilah la ñuy wax rek. sant yàlla rek euh, comme ni ko waa ji waxee dëgg-dëgg rek ndax euh, sant rek moo ñu war waaw waaw sant rek moo ñu war kon li li ñuy def mooy continuer liggéey bi rek incha allahu ba ila ma sha allahu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.